yéen a bokk saa xaw a faat na nga dul saa xaw a saa xaw a soxna Mbaye. waaw waaw nga jóg leen mu riir ngañ ko mu jaral na nga tàccu ma ngañ joo ku mu jaral na nga tàccu daal tey ñëw ci Bambilor seet si askan wi ñëw ci base bi c'est sama frère monsieur le maire honorable député Ndiagne Diop ma koy félicité di ko encouragé bu baax taxawaayam ci askan bi ak liggéeyam di nuyu baax monsieur mon frère monsieur le ministre d'État Ismaïla Madior Fall di nuyu les honorables députés, M. le directeur général de Petrosen, les honorables députés, les hauts conseillers, les collectivités territoriales, les conseillers économiques, sociaux et environnementaux, nous tous les responsables politiques, administratifs et coutumiers qui ont si bés bi nous ngi nuyu ñëpp sargal de di leen ziar de yàlla dafa dogal na ma de fii ci commune Bambilor commencé c'est ci c'est un c'est c'est un c'est c'est un travail, c'est liggéey seen ay c'est un fixe dans le département de Rufisque yàlla dogal mu nekk fii ci commune Bambey nous ci liggéey bu am solo jàppale jigéen ñi seen autonomisation renforcer les capacités, capacité waaye pour ay femmes entrepreneurs mm. parce que yaakaar la son excellence présent président salle, dans sa vision de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035 de faire jigéen ñi au cœur de son programme de développement pour mm. nañ jàppale le ñi dañ renforcer bu ngeen dimbalee parce que ku dimbale jigéen dimbale askan yoolu yoon boobu nag la honorable député moom Frère Ndiaye Diop jaar fas yéene jàppale jigéen commune am di leen dimbale masom solo tabax marché bi yaa ko gis xam ne marché bu am solo la un bel un vraiment un joyau de la commune nga xam ne jigéen dañuy gis seen bopp ci biir nekk fu set nekk fu féex di mën a jaay am lu yóbbu seen askan loolu ñu félicité baax monsieur le maire di la ci nuyu baax di la sant di ko merci monsieur le préfet de l'arrondissement de Bambilor qui m'a accompagné depuis ce matin Ce matin, ce sama taat que ko fa la directrice du SEDAF madame Beng toutes les organisations de femmes qui m'ont accompagné je sente particulièrement toutes les femmes responsables leaders qui m'ont dans cette tournée je ngi sant du di gërëm vive la commune de Bambilor vive M. le maire